malgré ni mu demee dinañ ci ñëw malgré jaxasoo bi malgré achat de conscience bi malgré fichier bu leerul bi malgré lépp li nga xam ne def nañ ko ngir mën a def ak càcc ñoom dañ cee génn nërmeelu loolu mooy dëgg loolu mooy li am ba Alaaji Malick léegi nag lan la coalition Yewwi di xaar pour def loolu ngay wax ni def la point ci élection yi di ngeen gis xam nga tamit nag non euh, danga da nga posé question dama lay tontu lan la coalition Yewwi di xaar la muy xaar mooy ñun kenn duñu imposé agenda xam nga kenn imposé wu leen agenda sëñ bi boo laajee dangay bàyyi rek ñu tontu mooy gën a yomb <coughs> génn nañ ci ay élection dañu def travail bu sérieux ak commission électorale bi nga xam ne le président sama xarit Déthié Fall moo ko jiite ñu def liggéey bu am solo ba def restitution bi waroon na def sax conférence de presse pour wax ak sénégalais yi far mu tombeek Sénégal ci qualification Coupe d'Afrique bi période boobu la boo ci génnoon wax tamit du am njëriñ suñ dañu am suñu timing bopp bu jotee dinañ wax ak sénégalais yi mais li am solo mooy comme nañ ko yàgg defee saa su ne lépp lu mën di am dañ ci gëstu liggéey ci bu ñu génnee wax te la ñuy wax kenn du ko teggi moo tax ma ne la bul yàkkamti incha allah rabbi di ngeen gis ban jàngat lañ def ci élection yi xam nga coow li bëri na yëpp déggoo benn leader coalition Yewwi Askan Wi bu ci yëy yàbbi mais te loolu loolu du réeroo ci seen biir mukk du réeroo tey la coalition bi gën a rëy ba pare ñeneen di fàq ñëw tey la coalition Yewwi gën a am gën am doole ñeneen di fàq di ñëw parti yu mag a mag a mag ci Sénégal ñu xam leen décidé nañu ñëw sans condition wax ci benn jaru ko parce que amul moo tax ki yodd sa xët non parce que amul. ba local yi. Euh, xam nga ma yow. xam nga ma du ma du ma du ma wax du ma wax nii rek pour euh, sànni wax. mais comme dañuy liggéey te am na ñoo xam ne dañoo jéem lu ne ngir tas yeewi askan wi yeewi askan wi gën fa jëlee doole. élection yi nga gis ni mu ko marqué ñu jëm ci législative yi ñi nga xam ne ànduñoo nag ñun xëy na dem nañ ba gis ne booloo opposition bi mooy li am solo. pour ñu jël assemblée bi doxal lu ñu bëgg a doxal ci mim réew. alors El Malick ndax mën nga ma wax nan la yeewi askan wi gën a amee doole ci élection yi nga xam ni ci lañu